Eh, ki daan ki daan wane ndam ak ki taxoon ndam daan am kooku rek moo moo wane waat ndamam muy Serigne Touba Khadim Rasoul ndax damay wax ne bi lislaam jëree bakken Serigne Touba képp a joxe woon bakkenam ñu yóbbu ko fu ne ñëpp sa ngéem ku ne di xool foo jëm Serigne Touba rek a taxaw ginn ñëpp Serigne Touba mi ginn woon ñëpp it ku ne xam na ne dañoo nekk ci tawat daanaka lépp luy diine rek ñu aj ko waye kiñ dimbali won dem mo dimbali wat tay muy Ahmadou jëm ji tëdd fi nak Serigne Touba Khadim Rasoul moo jëlee maamam gànnaar ñu koy wax soxna Nasarala Aydara di sotu yonent bi alayhi salatu wassalam Serigne Touba tuddé ko soxna mbacké mo jur soxna Aminatu mi wajuram kon serif abdourahman lako Serigne sali waxon bam koy wuy ji ne ko fekk ma ndal bi ñewé ñap ndal Serigne Saliou dané ko sa maam mo mané ab nga waaw mu jël tànkam gépp nag ak léppam teg ko ci lislaam di liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul partout dans le monde jaarale ko nag ci ki nga xamante ne moo doon xemmam téefam di Cheikh Ibrahima Fall Lamp euh, ba ni ko nit yi gisee bëri na ci àdduna jeunesse boo xamante ne Sirif Abdourahmane mi tëdd fii moo leen dimbali teg leen ci yiw ak njub ak sell tey jii yàlla dogal euh, ñuy waaj màggal euh, mu ne fii mu doon lu tiis nag waye nak doon tawfiq rek wa doon tawfiq nak yalla mom ak ndogalam mo gën lu dul ndogalam té nak ab jam mom da war bu yalla dogalé rek mu neex ko bon fi nga gis moy barabu Serif Abdourahmane ak mom moy barabu Serigne té ñom ñaar kat bi leen Serigne saliw di présenté nga xamni bis bobu Serigne saliw wax na Serif ne ko Serif mu ne mbacké mu ne ko xam nga Béthio mu ne ko waaw mu ne ko Béthio xam Cheikh Béthio xam nga Serif mu ne waaw. mu dama damaa bëgg ngeen ànd te jàppante ndax seen këri àjjana yi ñoo denn boobu lii xewagul waaw ba yàlla firndeel ndax waxi waxi doomi Sëriñ Tuubaa moom du luy naax saay dana ko woon seen këri na ngeen jàppante ngir seen këri àdd àjjana yee denn ba mu ko waxee démb boobu ñu ngi ci kaw suuf waaye lii tey firnde la na sëñ Taaliw waxoon dellu si na muy seen kër yee denn seen seen seen seen kër yee denn wax dëgg yàlla ñu doon ay jàmbaar nag ci yoonu murit Dende nii ñu kon li ñuy ñaanal sëriñ bi rek moom la ñaanal cheikh bi sa borom yokki leeram te taas nu ci barkeem te jàppale njabootam ak njabootu Chérif Abdourahmane ba liñ fi bàyyi ci liggéey ñu mun koo wéyale incha allahu rabbi taala cheikh Chérif Abdourahmane mii nga xamante bi dogal bi accès nga xam ne wax ni mom day ku tudd ci yoon wi dara foo nga tudd ko ndax ku tudd sa xel dem ci te ba muy dem poroxaan daanaka xawut a wér waaye raqam bi bi mu ko woowee ne ko sëriñ bi damaa bëgg poroxaan gi de nga nga nga fasaale nangam dana déedéet même su may faatu danaa dem la wax même su may faatu danaa dem nga xam ne moom moom ci kontante la dem moom ci kontante la dem ndax dane même bu may faatu sax danaa dem loolu la wax kon taalibe na nam ne leen sëñ bi yaree woon rek ndax keroog bi dogal bi agsee taalibe yi ñoo doon nax ñabootu sëriñ bi Nak loolu la serigne bi defoon ci ñoom serigne bi dana leen woon na ngeen góorgóorlu ci bu leen xàmmee bànneex ak nakar daal ne nit ki kat daa war a ci bu bànneex ñëwee ci moom mu bekk su yàlla dogalee dogalam bi na ko sant moo la taalibe di ñëwee mooy yar ak teggin siyaar si sëriñ bi waaye lépp nag ñu teg ko ci yar ndax sëriñ bi moom ku ne dégg na lam daan wax da daan wax naan samay taalibe nanu góorgóorlu ci nanu fexé set bi ñëk nanu sel, waye nanu dëggu yit nanu jaamu yalla waye yit nañuy teral ay seeni wajur nak nit amul lépp ay waajuram sëriñ bi daan na wax naan kula néné japp na la bayina say way waaye ay wajuram sëriñ bi néna bako nak xoxu ndax dëgg nit amul daan na yar gi nak ak teggin gi ak dal gi ak ak ak ak ndogal gi loolu mom na ci ñëpp dox motax bi bi dogal bi agsee kenn yëngul donte ka mom lañu xam mom lañu min miin li ñuy nampatal ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima diko yek moko def ci ñun waye na dafa am ci lu ñu tënk mooy kat japp nañu bis bo xamantene ci la fi talibé yi war a agsi ndax fi aksi di ñëw ak dem di siar si waye nak bu ñu màggalee ba ca gannaaw ëlëk sa nak ki nga xamantene moy khalifam talibé yi na ci raison yé kaal yeeg yépp dañuy dajé fi ci barab bi siyaar ci ko bu ñu màggalee ba ci gannaaw ëlëk sa ñepp ci lañ japp ñepp mëna dajé fi ñu andando kañ ko ñaanal ko yàlla waaye it sant ko ndax lu nu am wala lu nu mel moom lañ koy sante ndax moo nu ko def ndax bu dul woon ak moom ñun taalibe yi duñu mel ni ñu mel wala ñuy nampatal dara ci yoonu murit moom képp la kon daal waaj nañ bu ñu bu ñu màggalee ba ca gannaaw sa la ëllëg sa ànd ak taalibe yi ñëw siyaar si ko fii mu ne buñ fi jugee it dem siyaar si dëkk eh, dëkkaalem bee di Cheikh Béthio ndax lépp benn la ndax sëriñ bi moom ixsaan lay digle te si loolu la ñuy dox wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh